ndax boo fi bàyyee lu baax li nga fi bàyyi du ràpp du raaf du réer alaaji baara seen baay moo liggéey liggéey bi waaye bi fi bàyyee sëriñ buub yaxu ko dafa ànd ak rakkam téye ñëpp uuf ñëpp jàppale ñëpp te dafa am juróom benn yoo xam ne benn bu ne am naw tur waaye bu ne ci nit la gën muy jub ak way ak teey ak mat ak wér ak wu fit jub ci yoon lan ko taam waaye ci nit la gën nit bu jubul loo ko jox mu luubal ko sëriñ boobu ku juba ngi nii tey cim ndox lan ko taam waaye ci nit la gën ku teye ngi nii way cim soow lan ko taam waaye ci nit la gën ku waye ngi nii mat cim xarum tabaski lan ko taam waaye ci nit la gën ku mata ngi nii wér cib góom lan ko taam waaye ci nit la gën ku wér a ngi nii waaye kuy def ku la xuux nga daw doo taxaw bay taxawal dara comme fi te ngi nii alaaji baar la sa baay tuddu soxnam loo ko jur maram faal jango ko jur mor sali jango ko jur masalla njaay mampenda ko jur dam ndakkani balla ndakkani isa jey ndakkani faaloo ndakkani ñoo bokk loo am na soxna loo soxna daba Baba soxna Xëri soxna Suloo soxna Minata Loo sa sëñ Modou Moustapha moom sa Mbàkke Madina kooku lan la fayee waaye yëmmu la sa yaay tudd Mor Jaxate ko jur yëmmu la ko jur Masata Aysata Aysata Joob saa xewar Fatma mi tëgg ndënd yi taal jàng yi waaye njàmme jaxate ko jur njàmme jaxate Baaba di ka Xëri Njaay Asan Kumba Sëgg Jeey yéri tàkko caam tàkko caam Kumba Caam ñoo bokk jenn baay Kumba Caam moo dem kan kër Sandene wele am fa Dramane wele mu jël Farma Diop am ca Bakar Farma Diop jox ko Mbote Faye moom ca Fawad wele jox Ousmane Sy moom ca Alaaji Malick bàyyi sëñ Babacar waaye yow mu la sa yaay tudd Marema Jaxate ko jur Aminta loo ko allah Njaay Ndeng Mbaaro Siro Xuja Kumba sa maam Gaydel Xuja Kumba Seyib Xuja Kumba Anda Seex Xuja Kumba Faalo Xuja Kumba Yàlla Xuja Kumba Daaro Xuja Kumba Maam Jaañ ñoo bokk ndey baay yow mu waayam ñoom mu jàng sa yaay macha allah yëmb jag sa yaay nag macha allah Marème Jaxate ko jur waaye Marème Jaxate Mor Jaxate ko jur oh. yëmb la ko jur yëmbul Njàmme Jaxate Baba Diga Xara Njaay waaye Njàmme Jaxate sa maam macha allah mbokk baayam ma xuja faafaal mbokk mu ras Ture mu jur kan soxna ma Jaxate soxna Fat Jaxate soxna Minta Jaxate soxna Marème Jaxate lan jox Seexul Xadim moom ci Sëriñ Abdou Lahat macha allah ak kan waaye tàcc leen waaye asan ku ma sëg macha allah macha allah waaye nag Sakar Fatma ma ma semaam bu dëgg dënd yi taal jàng yi moo jur sax soxna ñaan am ta madu soxna ñaan Binta soxna ñaan Ablaye soxna ñaan Amita soxna ñaan ñoo bokk jenn ndey ak benn baay Amita soxna ñaan soxna ñaan Yaasin Joob Xure Jang Bexeer ma jaan Mbasangaan Diouf Baara la sa baay tudd. waaw waaw waaye Baara soxna loo ko jur Mor Jaxate Mor Jaxate sa maam macha allah macha allah Mor Jaxate sa maam Yusufa loo ko jur. waaye Yusufa loo Mor Mare maa ko jur Amara wa maam Diop. Matar ko jël waay tàcc leen lii waa Kaolack. Demba Mbargu Demba Njuga Demba. Binta Sey. ñoo bokk ndey ak baay. waaw waaw Adama Sene ma kay sa maam moo jël xuja sira xuja kumba am ta xuja sira xuja kumba gaydel xuja kumba sey xuja kumba ana seex xuja kumba. waaw waaw Paalo xuja kumba kumba. waaw waaw xuja kumba maam kumba. waaw waaw ñoo bokk ndey ak baay ana kumba sa maam moo waree ndaam wàcc am bu fi yemoon sax mu Assa Fall Pita Fall Khoudia Koumba Khoudia Koumba war a ngi wàcc kooki. ko sàmm na ceebu. waay tàcc leen ko nag may leen ma ko loxo nag. Mbodj am ca maam Dieng. rafet na Awa Demba maam Dieng a jur yàlla. tàcc leen ko mu yegg si tàcc leen monsieur Mbour mu yegg si. maa ko wax ñoom ko daaru musi jox ko maam Thierno. waaw waaw sëñ Balla Cheikh Awa Awa Balla ñu bokk jenn ndey ak benn moo joxe léegi enveloppe boobu ci li nga xamante def na ko ci bés bi ah mbok yi xarit nag ñu daal di leen tàccu nag ki nga xamante ne nag mooy monsieur Mbuub Serigne mu daal di yegg si ndax tamit nag merci mesdames et sa mbokkam ak Serigne wax naa ko léegi. jërëjëf macha allah. merci beaucoup ñooñu nag mu rasa turé la seen maam tudd mu rasa turé seen maam waaye nag ma jur Marema Jaxate Fat Jaxate ñu bokk jenn ak benn baay Serigne Allou Fadlo bokk ndeyam mborgu ak amintaloo ñoo bokk jenn yàlla mbaarik yàlla maam saar yàlla madu binta binta faal waaw waaw yaram bi daa tàng nag jërëjëf yaram bi mesdames et messieurs voici maintenant le président directeur général du groupe CCMM que je vous demande d'applaudir très fort nous saluons aussi la présence de tous les élèves de l'établissement BEM ici présents on ne vous entend pas les élèves Bonsoir et soyez les bienvenus. Et je rappelle encore, mesdames et messieurs, avant de lui donner la parole, tout à l'heure, on aura une visite guidée dans les stands et on vous demandera à vous tous, mesdames et messieurs, de nous accompagner. jërëjëf. bismillah. salaam bi Ahmaduna nabi noorun asimun xad yara bi fi umul nag ñu déglu monsieur le premier ministre mon ami et frère Mohamed Boun Abdallah Dionne madame messieurs les ministres madame messieurs les directeurs généraux chers du secteur privé ma nuyu sama sëriñ yi sëriñ Dan Mbàkke sëriñ di yabal ko mu boole ko teewal fii sëriñ taxa ak sëriñ Siidi ànd ak sëriñ Amsatu Mbàkke ànd ak sëriñ Cheikh Aliou chers visiteurs chers amis nous sommes infiniment heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce magnifique temple de la culture qui est le grand théâtre national pour célébrer les trente ans du groupe CCBM. Je vous souhaite ainsi la plus cordiale bienvenue. Tout d'abord, permettez-moi de réserver une mention spéciale à mon défunt père, Barambou, que Allah lui préserve son paradis, Après des études coraniques, il fit preuve d'engagement, de, de droiture et de créativité pour se consacrer à l'agriculture avant de créer avec revenus modestes vers les années 60 une boutique destinée à la vente de tissus réservée jusqu'à là aux euh, étrangères. C'est dire que ce fut un plaisir dans le domaine de textile. Il nous dans les principes fondamentaux de l'islam et élevés dans le respect strict de nos le point d'ancrage dans les affaires. Ce fut en 1983 que j'ai quitté Koki. Lors de de Dar de Koki pour travailler assidûment à ses côtés. Sous son encadrement, j'ai pu bénéficier de son expérience et de son savoir-faire jusqu'à son rappel à Dieu en 1992. Ce fut une séparation douloureuse, mais je m'en suis au bon Dieu qui m'a la force d'hériter quelques traits de ses qualités pour mettre en place le groupe CCBM précisément en septembre dans la même année. C'est le lieu de rendre un hommage mérité à ma famille, tout d'abord à ma mère, à mes frères que je peux citer, Moussa Mboub, qui est là, qu'on a travaillé ensemble jour et nuit pour mettre ce héritage en marche. Mais aussi, nous avons pu relever le défi de faire l'entreprise familiale ce qu'il est devenu aujourd'hui générant ainsi des milliers d'emplois, il est évident que cette grande confiance et cette solidarité agissante constituent le capital plus précisé de notre groupe et sont les premiers garants de son succès continu. C'est ici l'occasion qui me s'est offerte pour remercier les trois présidents qui se sont succédés à la tête du Sénégal depuis la création du groupe faisant confiance à l'expertise nationale. Ils toujours été bienveillants à mon endroit et attentifs aux préoccupations du groupe CCBM Holding. J'ai le plaisir de vous faire l'économie de leurs témoignages à mon endroit que vous avez le film tout de suite. le président Diouf, euh, qu'il m'a reçu pour lui exposer ma vision concernant la modernisation et la réforme du secteur de commerce, ce dernier séduit par la pertinente et la cohérence de ses idées développées, me recommanda à son ministre d'État, directeur cabinet Feu Ousmane Tanordien, en ce terme, Monsieur le ministre d'État, suivez-moi ce jeune homme, il m'a fait une forte impression, je vous le recommande. Concernant le président Ablaï Wad, au cours d'une audience dont l'objet était la présentation d'une nouvelle gamme de la voiture de Sotram, filiale de CCBM. Sotram, c'était une société de transport moderne que nous étions engagés pour la modernisation du transport en 2007. Il m'exprima à ces termes, je voudrais encore une fois féliciter Serigne qui est un homme d'affaires très proche du gouvernement Chaque fois que le gouvernement des problèmes, il nous montre ce que le secteur privé peut le président Macky Sall, qui s'exprimait lors du conseil présidentiel tenu en 2017 à ce terme, il m'a dit, Serigne Mboup, vous êtes un exemple de résilience et de courage. Vous avez avec beaucoup d'énergie représenté l'Union des chambres de commerce à vaincre les barrières linguistiques, ce qui est une grande mérite. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements au président de la République que je demande au Premier ministre de le transmettre, M. Abdullah Dion, mon frère. M. Abdullah Dion, vous avez vu, depuis longtemps vous ne l'avez pas vu, mais c'est un ami très proche. Quand il était le directeur de, directeur de l'industrie, je suis venu sur recommandation d'un ami de mon père, feu, feu Dame Il voyait que je commercialise du lait. Il m'a dit, produis ça. Il m'a recommandé que j'aille amener une petite industrie. C'est lui-même qui m'a délivré la première attestation industrielle. Donc si aujourd'hui le CCBM est industriel sur beaucoup de c'est grâce à lui. Il n'a jamais cessé, jour et nuit, jour et nuit, et tout le temps, de me conseiller On a voyagé partout dans le monde. Vraiment, je vous dis, c'est un ami. C'est là, je me limite à ça. Monsieur le, Premier ministre, dit au président Macky Sall que nous lui remercions. Le président Macky Sall, son excellence, qui manifeste beaucoup de respect à l'administration de mon égard. Il porte toujours une oreille attentive sur, la, euh, sur les préoccupations que je lui soumets, en trouvant toujours des solutions adéquat. Ce qui me réconforte le plus, c'est lui, son humilité, sa gentillesse et son caractère envers moi. C'est donc dire que le groupe CCBM a toujours bénéficié de la solitude et la confiance des autorités, qu'il qu en soit tout vivement remercié. Nous remercions l'appui avant à l'ensemble du personnel qui ne menace pas aucun effort pour la réussite du groupe je les exhorte à suivre le travail pour l'ensemble pour l'ensemble pour l'ensemble relève l'ensemble pour l'ensemble relever les défis économiques à tous les visiteurs ici présents je vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre groupe pour avoir fait le déplacement monsieur le premier ministre je vous dis quelque chose le Covid a été très difficile mais le Covid nous a permis nous CCBM de recentrer bien que notre chiffre d'affaires a baissé, mais de recentrer, de régler beaucoup des engagements financiers qu'aujourd'hui le groupe est presque, euh, euh, est presque il n'a pas beaucoup de dettes envers bancaires. Mais aujourd'hui, nous remercions notre cher frère M. Khan ah, qui a hérité là, remplacé M. Omar a commencé à travailler, qui était là, mais M. Khan a, est venu, a CCBM il a cru en nous, c'est le directeur général de la Banque islamique. Et vraiment, si aujourd'hui, je dis que l'une des euh, prix euh, importants banquiers, gros banquiers qui sont investis avec nous, c'est lui, avec, accompagné de son directeur de l'exploitation, M. Massiré. Je voudrais formuler des conseils à la direction des jeunes de génération en m'inspirant de mon parcours, car ayant travaillé aux côtés de mon père 10 ans, euh, durant et ayant beaucoup appris après cet homme euh, péri de qualité. Faites preuve d'endurance, d'engagement, de solidarité et d'abnégation au travail pour que dans 30 ans, nous puissions fêter les 60 ans du groupe ou que vous puissiez fêter les 30 ans de votre entreprise personnelle. Continuons à placer nos compétences notre énergie, notre savoir-faire au service de cette belle ambition de faire du groupe CCBM une fleuron de l'économie sénégalaise et africain Chers visiteurs, ces trois jours de célébration, nous ne l'avons pas fait comme fête. Nous avons fait trois jours de discussion et de débats et de euh, pour parler des secteurs que nous sommes. Vous savez bien que le secteur agroalimentaire aujourd'hui concerne les Sénégalais pour leur autosuffisance alimentaire. Vous avez aussi le secteur de l'électronique aujourd'hui que vous avez avec le développement de high-tech qui est aujourd'hui indispensable pour chaque activité. Le développement du secteur des médias, l'immobilier, le transport logistique et l'industrialisation. Je termine pour remercier ma famille, l'ensemble de, ma, de, mes, de, mes, de, ma, de ma famille qui sont là. D'abord, j'ai dit mes frères, mes, mes amis, mes enfants, qui ont travaillé durement, jour et nuit, et remercier ma femme, Madame Moup Seynaboulo, qui est là, et Madame Moup Fadjeng. Et remercier les Kaologas qui sont venus partout, remercier mes partenaires du club euh, CIS, euh, Pierre Goudjabi, accompagné de Babacar euh, Ngom, remercier euh, mon ami, mon, mon, ma, la personne que nous avons travaillé ensemble, euh, Inakoye Sissé, et remercier l'ensemble des acteurs, remercier mon père, mon ami euh, Abibsi et l'ensemble des acteurs et aussi Pape, Dem, euh, Pape Dembe Bitey qui est un parent de Kaolak et remercier Pape Modike Diop aussi et l'ensemble des acteurs qui sont là.